Euh, fii ci Sénégal ak euh, ni ñuy gis ni ni ñuy tegee ni ñu loxo yenn ñenn ñi di ko duppee ay euh, détenus d'opinion wala ay prisonniers politiques ñu gis Sénégal seen i diim xaw a takk lool donc loolu oustaz bëggoon nañ ci waxtaan tey ak taxawaayu justice fii ci Sénégal d'abord yow nan nga gisee taxawaayu justice fii ci Sénégal. waaw xam nga ci démocratie justice dafa nekk benn pilier maanaam benn ponk. ponk la ci boo xam ne dama xoon bu nekkee démocratie nit la justice yuur ba lay nekk ndax mooy keno gi moo koy téye parce que mooy tax nit ñi mën a am liberté ci biir démocratie boobu soo ko jàngat tamit dafay lëkkaloog liñ tuddee liñ tuddee droit de l'homme doomu aadama war ko mën a am ci kaw suuf si nga xam ne moom la ko yàlla bind bind ko ci bind ko ci suuf si ne ko lekkal ci suuf si li ngay sol ci suuf si lay jóge li ngay naan ci suuf si lay jóge kon kenn waru ko xañ dara ba ci xel mi nga xam ne moom la ko yàlla jox même bu yàlla wax ak nit nii day pare ne leen lii ma wax nii pour que ñi xalaat la n'est-ce nga xam ne yàlla kon may nañ di mu exprimer wu sax mu wax lu ko neex ci yàlla yàlla taxul mu bàyyi fi ni ñaata nit ngay xëy ñu wax seen seen la ñu xalaat ci yàlla yàlla bindale ba pare nga xëy ne yàlla amul wala nga jël keneen dendale ko yàlla kon il faut ñu ci tiire ñu xam ne nit fi mu nekk suuf su ko ruuxee ba nga xam ne buy def injustice ci wàllu woowu euh, yàlla da koy mere. moo tax nag nit ñi gis muy doxee nii léeg gis koo xam dañ ko téye parce que xalaatam la génne wala boog bëgg-bëggam la wane wala boog fa mu féete lañ koy téye yooyu yëpp tey bu amee ci justice justice boobu day dem ci nërmeelu moo tax ngeen di gis yi nga xam ne moo di xew ñu jékki-jékki jàpp nañu diw tëj nañu diw rey nañu diw bañ ko tëjee et cetera te loolu nag incha allah war nañ ci jàngat comme ni nga ko waxee ñu gën ko xóotal parce que loolu bokkul li taxoon nit yàlla andi ko ci suuf bokkuloon ci rôle doomu aadama muy bundu xatal moroomam ci couleur am ci xalaatam ci bëgg-bëggam loolu moom dama naan du élégance chaque jour ma répété ko élégance mooy nga def nga bokk ci harmonie bi mooy lan lépp maanaam picc yeeg xar yi sax dañu bëggoon ñu may leen liberté waxuma laa li nga xam ne moo di nit di doomu aadama donc doomu aadama soxla liberté oustaz loolu dañuy may rek ñu continuer ci benn dossier muy wala sax benn groupe ci ñu ñuy jàpp noonu ñu leen di duppee ay ay prisonniers politiques euh, am na si ñoo xamante ni benn bu ko xaajee benn groupe ñu leen di wax les force spéciales donc dégg nga ko fii ku mel ni François bu génn àdduna bu yàggul ñu koy jarawaat ay mbokkam ci la bokkoon ku mel ni soxna Ami Dia moomu ci ci la bokk ak ñeneen ñoo xamante ni jamono jii ñu ngi ci loxoy yoon ñooñu ak profil yi nga gis ñu leen di mal lu mel ni force spéciale ak liñ ci wax yëpp yow maanaam nan ngay analyser ñooñu teg loxo gi leen teg loxo. waaw xam nga parfois nguur buy paniquer wala nguur goo xam ne dafa nekk doxal dictature ay dictateur nekk fa parfois bu ñu bëggee doxal seeni bëgg-bëgg dañuy tafal ay nit étiquette diabolisation ñëw wuute la tur ba pare pare pare ci biir tur boobu pour mën la cee jàpp toujours c'est comme ça defal ay étiquette euh, pour ut li ñu leen taxaar rek pour jàppale. parce que mënoo xam nga li ci yéeme mooy dafa histoire mooy répétoire répétoire encore une fois nguur seen xool système nguur yi nga xam ne dictature mooy dox ki fa nekk nekk dictateur il faut mu tafal ki mu bëgg a jàpp étiquette nit ñi di xalaat ci loolu mu jàpp ko ci biir tour loolu. pour am dossier muy enquête ci tour boobu parce que mën leen jàpp ci lu vide nii xëy rek tey ni ki non il faut nga nga nga ne sip sone naa nangam da gis ku ñu yóbbu sax fële comment dirais euh, prison fekk naa fa dem naa benn prison fii Sénégal ma gis ay xale ñu ne kii tentative de vol la doon def tentative de vol moo ba ku jàng tubaab kon dafa doon jéem a sàcc kon tentative ci tur boobu lañ koy indee boo xoolee tax njàpp ko da nga pour que mu ñëw fi est-ce que sàcc na koon daa jéem mais faw ñu créer benn tur ci biir tur boobu jàpp ci ay nit pour que ñu ubbi dossier boobu force spéciale xam nga boo delloo ci dictionnaire sax. yi muy tekki loolu loolu force spéciale du ñu nekk sax ay como ñoom dañuy dox silencieusement pour ñu éliminer nit doo leen sax yëg voilà pour nga am force spéciale pour nga dem euh, ñi dóor ñi dóor seen tuur yi ñi dóor seen avion yi ci tuuru États-Unis yi pour nga am force spéciale ñooñu la ñi nga xam ne dañuy xëy silencieusement la ñuy abattre nit doo yëg fu ñu nekk ak seen doole seen seen formation sax yenn saa yi dañ koy nëbb maanaam ki fa nekk mën nañ ko xañ sax mu am relation waa këram pour ñu bañ a am secret foog nga yooyu yëpp seen mbir na maanaam ñu nekk force spéciale dëgg nitu secret doon du bëri wax même soxnaam du am information yi sax yi nga xam ne moom da koy am wowuma la ak xaritam ak keneen parce que ñooy seen rôle dafa garaaw ba nga xam ne boo ko tuddee nit mooy musiba am na kon yooyu yëpp étiquette lay ñuy tafal nit pour que man la jàpp téye na yow da nga jàpp ne ci ni nga waxee maanaam ñi ñu teg loxo noonu sax ce sont pas de bons profils yu ñu mën a maanaam méngale ak force spéciale gi ñu parce que li li li koy wax ne mooy Sénégal ñun suñu dëkk ni mu formé woo ñun dañoo xamante xamante goo xam ne pour nga enquête ci nit pour nga xam lan la dafa yomb. xam nga léeg-léeg ñuy ne Babacar suñu police dañoo aay ci enquête suñu gars yi ni ñu aayee man nangu naa mais dama laan ñun tamit ñu bëri nettali la ñu ñun dañuy nettali Babacar pour ma jàppale day yomb dama ñëw civilu benn agent secret la ñëw ci koñ bi am na booy boo xam ne dee na fi wala am na ku fi sàcc wala koo xam ne ñu ngi dégg ne mu ngi jéem benn affaire ma ñëw fekk booy rek ma jëndaleen tee ñu toog di commentaire ma commencé man damay civilu non booy boobu guéri la ah booy boobu nga xam ne vraiment day da booy na ci koñ bi duñ ko non grand ko xam nañ ko ñoo bokk koñ léegi grand bi am na léegi ay éléments ne ah booy bi kon sorewul fii te dañoo xamante ba nga xam ne boo nekkoon boo gisee enquête di yàgg ci dëkk tubaab xamante wuñu ñoo ñooy professionnel pour nga xam ko aay dëgg dëgg dëgg dëkk boo xam ne nuyoo sax duñ ko def xamante ñu nga enquête moo tax seen enquête mën a diire dix ans mais fii sim Simblaye Sall jàpp nañu waa ji. waaw ñun tamit force de l'ordre et am nañu xarañ xarañ ci lu jëm ci wàllu enquête. xarañ nañu kay dégg ma ma reconnaître ko mais dama la ne bokk na ci li li yokk seen xarañ mooy dañuy nettali te comme fii dañuy yoole doo dee gars yi dama lay yoole boo gisee ñun lu éclaté rek ku nekk daw ci réseaux sociaux yi boole sa morom. kon day yomb maanaam bu nekkoon bopp sa bopp la dëkk boo xam ne nit ñi da ngay tàllal ni photo ni sax ci quartier bi mu dëkk ñu la xamuñu ko mais fii na benn booy def dara ci koñ bi ñu tàllal benn booy booy kër grand kër gële la dëkk kon loolu dina yombal enquête bi et cetera pour wax la ne ñu ñu ngi ci mais mais pour bu wanee ne ñoom am na ñu doole tamit pour mën a enquête bokk na ci suñu société yenn saa yoolewante bi wala nga ñàkk def sax ñu takkal xam nga kooku day tax sax nit ñi gaaw a jot yow ku deful la ñu taxal massement ku def ba pare kon loolu dañuy ko reconnaître mais vraiment bokk na ci li ko yombal mooy dañu nettali. mu bokk ci di di Amy Dia nekk ab soxna yor ay yor njaboot di jigéen ñu ñu boole ko ci groupe boobu moom tamit di ko toppee ay terrorisme ak force spéciale yu ni mel eh, jamono ji gis nga njabootam manifestation amee sax da gis ay doomam dem eh, yor pancarte di di di sàkku ñu libéré seen yaay kooku ban ban situation moom de un cas spécial nan ko koy jàngatee. ñooñu ñëpp seen bàkkaar xam nga mooy lan. mooy dañoo bokk ci benn parti bu sonal nguur mooy seen bàkkaar bu nekkoon bàkkaaru politique la loolu mooy seen bàkkaar xam nga yàlla léeg-léeg mu dumalit ngir sa bàkkaar mais ñooñu seen bàkkaar daal dafa am fu ñu bokk bu ñu fa bokkul woon kenn du leen topp effectivement parce que koo xam ne kii ku jóg wax ci moom lu baax nga xëy xañ ko njabootam mu nekk yaay booy ko xam yaay ni mu war a jegee doomam war a jege njabootam war leen jigéen encore nga xañ ko liberté te nag au lieu que nga wan nit ñi fàng li mu def parce que dafa bokk tamit léeg-léeg ñu ne justice dafa am secret dañ ko bàyyi mu doxal non soo amul lu leer ci waa ji bàyyi ko mu toog dox liberté am du génn Sénégal mais da ko naan kii téye di dox ay muraada ci mbiram xam nga ne man damay dem naa prison pas dañ ma tëj de damay dugg di visiter loolu moom du ma am am na secret am sax du ko wax parce que loolu rafetul damay dugg bu biir prison damay dégg booy naan. tëj na ma fi cinq xaw ma lan laa def su ma la koy doo gëm nañ ma fi cinq ans xaw ma lan laa def imagine toi boo paree ñu bàyyi la ne la gis nañ ne defoo dara kon li waroon mooy lu toll noonu boo ko jiiñee nit waroo xaar nga wane preuve yi du moom mooy toog ngeen di wër ay preuve nii rek téye ko bankaa téye sax da nga waroon euh, fesal preuve yi ba pare téye ko nit ñi kenn du ñu wax mais fii Sénégal dañu lay tuumal dara téye la di wër loolu loolu mooy malheur bi effectivement jigéen boobu dafa am. ce sont ay la. bien sûr bien parce que xam nga lan la xam nga nguur buy paniqué waxaat naa ko sànq bu jànnaxee day day day jàpp aveuglement comme ça. maam di est-ce que comme comme ñun tamit amuñu yenn information yi ñoom ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu sécurité seen xam-xam ñu ci liggéey est-ce que amuñu ñoom information yoo xam ne xëy na le grand public amuñu. loolu bokk na ci li ci li ñuy noppiloo wala di ñu anesthésie. di nga Babacar loolu anesthésie laa ko duggee way way way xamul tax mooy euh, su nit ki ñëwee tey euh, nga ne dafa def benn jëye bu tool noonu nga tafal ko étiquette boobu lu réy la li nga ko taxal yow danga koy justifier pour nit ñi xam ne li nga ko jàppee jaadu na xam nga sa doom sa doom dafay laaj saa ko dóoree moo xam lu tax nga dóor ko sinon danaan da ngaa sa doom bi nga jur yow Babacar ma wax ko ñi ñuy déglu heure boo dóoree sa doom wax ko temps moo tax ma dóor la parce que xale lu mu def day jàpp normal kon boo ko dóoree nga ne ko temps moo tax ma dóor mu ne ah bon kon maa tooñ sama papa tooñ ma noonu la justice mel bu ñu anesthésier gars yi am nañu information yu ñu amul nañu ko jox ñu calme sinon dañuy way way parce que. pour des questions de sécurité aussi nekkul information yëpp la ñuy fësal. non sécurité mooy lan sécurité sécurité weesuwul nga sécuriser ki nga xam ne moom nga tuumaal exemple loo koy sécuriser nga wane li nga xamee ne nee nga moom la def. n'est-ce pas benn ñi xam dëgg la wala dëgg ku nekk xam nan ngay tëddeeg sa njëgënaay mais maanaam ñàkk wax li waa ji def sécurité la. ci wàllu aussi nekkul bépp information bu buñ ci am dañ ko war a fësal le grand public xam ko pour des question sécurité ak euh, sécurité yeneen citoyens yi nga xam ne aussi ñu ngi ci réew mi. waaw loolu boo ko tuddee boo tuddee ne bu nekkee question terrorisme la ñaata nit la ñu jàpp ci mbirum terrorisme génn defuñu dara. xam nga loolu tamit beneen cas maanaam tey bu nekkoon ne mos nañ jàpp nit ba nit ñi xam ne parce que tamit am na àtte yoo xam ne naa la jox naa la jox benn misaal rek am naa bëgguma delluwaat sax ci kaawu Sonko am ñoo ñuy sawaree gis lu ne Sonko ne fang pour nit ñi mën ko téye noonu lay waroon sawaree pour loolu ñuy wax ci nit ñi jàpp gis nit ñi wan wan gis ko fang pour xam dëgg loolu dëgg parce que nekkatul ci domaine am nañu information ñu amul xam nga lan moo xew mooy nga xam ndax waa ji dafa tooñ nga war ko téye. wala tooñul nga war ko bàyyi mu doxi soxlaam foofu lañ toll maanaam tey li ci metti mooy dañuy téye nit ki dix ans cinq ans génn ne defoo dara moo tax ñuy wax dañ ko répété plusieurs fois te kiñ naan tey mu dee li mu def rëy na ba ñuy xaar day génn ñu ne defuñu dara kon loolu il faut ñu xoolaat ko tamit d'accord am nañu secret yoo xam ne amuñu ko mais la plupart yi ci ëpp yëpp dañu génn ne defoo dara jiñ nañ fi nit terroriste jiñ ko ay viol jiñ ko lépp mu génn deful dara je peux donner un cas un certain un certain Madické Madické Diop je pense moom li ñu ko jàppee mooy jaaykatu pétard la woon am na am na ku mu ko jaay euh, kooku xamul turam maanaam bi mu enregistré numéro mu def pétard mu mel ni yow mu mu am sa peut-être benn livreur dara xamoo nu mu tudd nga def livreur wala yu ñu mel kooku moom loolu lañ ko jàppee parce que pétard la waa ji enregistré ci numéro am te mois après. voilà Babacar foo ma ginnaaw yooyu ak yeneen yi niroog moom booy bu ñu jàpp muy jaay café ñu boole ko ci gaa yi jaay café imagine toi yooyu doo ko xoolee ci police bu man enquête da nga naan moo tax man la sànq ñun mën nañoo nettali te nag il faut pas ñu jàpp ne jàpp nit ñi mooy solution nguur du bëri jàppaate yàlla xam na ko man da euh, allemand yi dañuy wax ne saawoo tijjee benn kaso war ngaa tëj benn école proverbe allemand la soo tijjee kaso tëj nga école mais ñun c'est le contraire école yaa ngi tijj ñi mu bëgg a yokk kaso yi kon wax la ne du téye nit ñi mooy tax ñu ragal la du tee nit ñi mooy tax nga am sécurité non insécurité ngay ngay ngay ngay judd parce que nit ñi dañu am liberté war a dox seen mer seen bëgg-bëgg soo koy faral di di di di euh, xajama rek léegi nga joteek ñoom te koo ci gis nag am na ku la bëgg kon nguur na bàyyi simlaay saala jàpp na ko simlaay saala tëj na ko loolu du solution il faut ñu bàyyi xel ne gis nga yi ñuy wax yëpp kañ nga kañ nga fi daan dégg kañ nga fi daan dégg nguur gu nekk jaar na fi nguur gu nekk xam nañu ne am na danger yu muy gis duñ ko gis mais tam est-ce que jàpp bi toujours te ñi ñuy jàpp ñi ñuy jàpp xoola ndaw soosu non nañ ñu wan benn affaire rek buy wanee ne mu leer nañ ne kii la bu dul lépp sax ñu calmer nit ñi maanaam tey na benn doomam dem ñu ne eh, sa yaay liñ ko jàppee day yaa ngi wax ci biti waa xamoo lan la ñu wan ko su demee dootul waxaat mais kenn du xam lu tax ñu téye maire bi ba léegi ci kanam ñu bàyyi ko ne deful dara loolu moo ci metti nag. faaw tamit ñu xettali ñu parce que boo jàppee nit ki pour nga teg ko pen bi nga koy teg te sax nga baal ma xamaa ci kaso àdduna rek moo am tëj nit mais ci suñu religion moom amul tëj nit tëj nit ci religion bi kenn la ku ñëw nga téye ko soupçonné benn mbir ngay wax mu bañ ni du ko génne nga téye ko en attendant parce que nit ki toujours bu defee dara ci suñu yoon ñun charia danga koy teg pen bi mu dem moo tax euh, diire xamal longue détention yi gaa yaa ngi ciy wax kaso yu fees ñenn ñi xamul leen fa bàyyi kon di tëj di tëj du solution nañu toog di wax ni ñi te nag këj tëj yu bëri mu ngi tàmbale ci nguur gi nekk fi tëj yu bëri yi woy woy woy tëj yu bëri yi dafa dafa ta woy woy dañoo dem benn nit ñi soofantal dig soo soofantal xama fële bi nekk Colobane euh, caserne bu fa nekk voilà c'est ça maanaam toujours toujours dafa dem ba nit ñi defatuñu te loolu dañu leen joxoon respect démb Simblaye Saale jàpp nañ ko ñu koy enquête mais nañu dal loolu laa bëgg. nañu mu bokk ci beneen groupe bokk ci ñooñu muy kii di Cheikh euh, Oumar Diagne ak Abdou Karim ñoom ñu tegoon leen loxo ginnaaw génn àdduna Imam Alioune Badara Ndao ak ay yoo xamante ni yëgati woon nañ ko mel ni. Euh, génn àddunaam dafa am ñu ngi koy ñu ngi koy ji ñoom tamit seen kàddu yooyu imaam est-ce que oustaz parce que nekkul lu ñu war a tegee loxo ndax kàddu yi xaw naa kii waaw parce que foofu sax damay ànd ak yow ci sa question parce que jot naa waxtaan ak koo xam ne xam naa ko lool te jàpp naa ne fi mu jëlee xibaaram lu ma lu wér la ci man parce que fu la ne wax jooju génn ci ñaar ñooñu dafa nekk wax joo dafa ëpp il tamit ñu wax ko parce que tamit nit ki loo ko jàpp ne soxor na soxoor na am na loo xam ne bu ko deful bu ko ko wax bee sax. ci ndaw si nga xam ne moo assisté imam su ma juumul jigéen la ki ko assisté ci opération bi bi mu dégloo wax yi dafa am problème maanaam bi gars yi naan dañoo joxe ndigal à partir de euh, bitim réew pour ñu def imam dara fii te ndaw soosu fa nekkoon assisté ko ci opération bi julite gi mu julite baax gi mu baax bi mu dégg affaire daf ko feebar il faut pas ñu mere benn nit ba dépasser borne yi ci yi ñu koy wax ne moo ko def dafa am solo ñu xam quoi maanaam maanaam dafa bokk ci dignité démb ceddo sax ceddo daawul wax nit lu mu deful ceddo maam ma jox la misaal parce que man tamit sama référence mooy prophète sallallahu alayhi wa sallam gis nga bi profet ñëwee ci diggu wooteem baayam yi baayam yi bañ ko ba ñenn ñi mënuñu ko gis Abu Sufyaan bokkoon na ci boo chef xam nga pouvoir am la bañ ñàkk toujours xam nga ñu bañ ñàkk pouvoir ñooy bëgg a rey seen bopp bu nit ku bëgg a ñàkk pouvoir gis mu mel ni jaan bu ñu maat ñu ne prophète doo ko fi defee ñu dàq ko mu dem Médine mais gis nga am na jamono prophète bind ay lettres adressé ko les rois là ay ñoomin César ñoomin Hercule jamono jooju quoi ci ay Rome oriental la woon Rome boobu Rome oriental la pas Rome occidental gis nga euh, chef romain yi bi lettre prophète àggee ci moom nga xam dakaa bind lettre bu gàtt lii mu ngi jóge ci Muhammad yonent yàlla bi jébbalul sa affaire baax soo ko deful di nga gàddu bàkkaar ak ñi la topp genre yooyu lay nekk rek mu ne wasalaamu ala mani tabaal huda léegi bi buur bi lii reet bi mu ne mais kan mu osé ci monde bi heure bi mu bàyyilew ma sama royaume pour ma topp li muy wax mu jaral buur bi nag muy gëstu kii fan la ba mu xam nag ne côté Makka la ñu ne ko am na mbokkam yuy quitté Mekk di def commerce di jaar fii mu ne bés bu ñu jaaraatee wax leen ma ci gàttal Abu Sufyaan dafa daan def caravane Mekk ak côté Yemen ak Syrie bi mu ñëwee ñu ne ko am na ay ay mbokkam yu ñëw mu invité leen ci ci salon bi ci palem mu ne Abou Soufiane dama bëgg nga li ma kooku di wax ba mu yónnee ma lettre fii kan la dama bëgg nag bu ma fen wax ma dëgg Abou Soufiane ceddo la moment yooyu bi mais gis nga bi ñu àggee buur bi di ko laaj ba ne ko est-ce que kooku mas naa fen abu Soufiane nee na damaa dem ba bëgg ko wax ne mas naa fen ma calculer su ma ko sosalee histoire dina bind na sosal naa sama doomu frère te day ñaaw ci man. ma ne déedéet masul fen parce que prophète masul fen xoolal xoolal réflexion bu Sufyaan malgré mu ngi bañ rasul bëggu ko sosal kon boog pour ñu jox information ci nit yaa xam bokk nga ak moom parti wala muy président boo xam ne gaaw na tëjee wala nit gaaw na dee ci nguuram bul teel a joxe information yoo xam ne day mel noonu parce que mën naa yëngal état parce que tamit jàpp naa ne lu France am am doole ci sama xelaat jàpp naa ne benn jullit bu nekk fële. fi imaam nekkoon julit su nekkee julit parce que nee nañu ndaw si jigéen la suma jumu daf ko metti kon am na lu luus ci wax jooju génn ci Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim kon moo tax nañu moytu di jéem a di teel a informé noonu parce que tamit nit ki nit mën na nekk reykatu nit am ku dee dañ jàpp ne comme reykatu ni moo ko rey mën naa am rey ko de benn booy. est-ce que ñoom it amuñu raison xaw a douter quelque part moom gannaaw bu ñu ko na moom it yu ñu mel daan koy wax ci ci bund xatal bu ñu koy bund xatal ak yu ñu mel. voilà xam nga yooyu imaam a koy nettali boppam te imaam xam nañ ko ci dëggu imaam li mu doon dund la doon wax te gis nañ ne am na xam nga bokkul ak koo xam ne imaam dafa xam nga imaam ba tey nettaliwul kaaw hôpital jotu ci wax dara te dégguma ko bokk xëy na ci koo xam ne jege na ko mu ne imaam nee na ma dañu ma. est-ce que bu ñu sukkandikoo ci kàddu imaam parce que mel ni Cheikh Oumar Diagne sax moom da doon saako ñu ñu def autopsie laata ñuy denc kii nit mën na douter mais nan ngay génne information sa gémmiñ mooy booy génn mel ni li ngay def li ngay wax dafa dëggu maanaam nit ku nekk mën nga douter ci nguur gu dënga capable nii maanaam da mën naa ne nguur capable na pour def bêtise yu bëri mais booy wax tamit dafa am nooy communiquer. man daal ñaaw naa njortu ci li yóbbu imaam te ñoo def autopsie waaye boo ne diwa yónnee wala ñoom diw ñoo influence rek tudd nga ay nit moo tax façon communication bi la rek maanaam mën nañoo dute ñu mal communiqué effectivement yéen a ñu dute effectivement parce que fii il faut ñu dute parce que fii da ngay ñaaw njortu yéen a ñaaw njortu sax daa dagan mais ni ngay communiqué boo ñaaw njortu mën na laa dugal way naa jox benn misaal ma tej foofu dafa am femme bu ma mës a li ma la wax nii mu woo ma yaakaar naa copine am la ma boole wala moom ci boppam mu woo ma ne ko allo mu ne ma kii sama xarit la wala man la sax la dafa am koo xam ne dama ko jiiñoon viol xaritam mooy wax yaakaar dafa ko jiñoon viol su ma juumul daal ma bañ a juum moom la wala xarit bi xama nga bi lan mooy problème am dafa nekkoon kër tàntam am ku ko fay yëkkataan mu ragal ko wax comme tànt bi du seetlu après xale bi jóge foofu xam naa daal nekk bu nekk xale bu tawul mu dox ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci beneen tàntam tàntam boobu moo commencé seetlu xale bi ci ay am mu ni kii daal yaa gis nga bi ko enquêté mu sentir ni kii dañ ko violé xam nga xale bi jigéen bi ñu ko laajee kan moo la violé dafa xool ci koñ boobu koo xam ne mës nañ ko tëj ci viol mu taxal ko affaire bi xam nga kon ko du ko weddil gaa ni ko ciixtee waaja dafa génn kaso décédé wala kaso la décédé mu génn tiit nag tuumal na waa ji ba waa ji décédé te du moom mu doog a tiit mu ne nan laay def ma ne ko déet lan ngay def dem na de te moom nga waroon baalu moo tax man la xamal nit ki dara dara xewaat lu mel noonu bul ne moom la mën naa am booy buy sàcc ci koñ bi mais buñ fa sàccee defal ndànk mën naa am keneen a sàcc am na booy buy reyaati ci koñ bi mën nañ fa ni bul bul siftaane booy ba tudde turam kon genre communication yooyu la moo taxee na ñoom ñu jël si leen benn yoon maa leen di ñaan ni ñuy communiquer parce que ñoom ñaar borom dañoo am xadar am combat boo xam ne bu personnel la Cheikh Omar Diagne combat personnel ak Kële Guèye Abdou Karim ñoom dañu am combat personnel ak président loolu bu mu leen poussé tamit ni ñu communiqué mu dugal leen communication bi daal laa gis ne bu ñu ko defaroon mu baax. mais est war naa nekk lu personnel warul nekk ci ci ci yorinu réew mi ak ni réew mi di doxee rek. ñaari combat moo leen boole parce que ñooñu boo leen xoolee fu ñu jaar ak président ak fu ñu leen bundu xatalee dañuy gis ni kii ndigal yooyu mu ngi jóge ci kaw te kii moo koy joxe bokkul ak seen beneen combat moo tax léegi nga gis leen ñu waxal seen bopp loo xam ne ñoom rek la engagé ci nga xam ne combat personnel am nañ ko ak président ak beneen combat bu ñuy mënee pour peuple moo tax mais mais ça parce que tamit euh, fii nguur gi parfois dañuy dañuy am combat personnel ak nit pour éliminer la encore ah ah oui c'est comme ça de du ñoom ñoo ko sooke de fii léeg nguur gi ciblé benn nit tere laa nelaw combat personnel kii na fi jóge ban solution gis-gis bi Sénégal yu bëri am ci justice ni réew mi di doxee jàpp bàyyil ni ni ni booy déglu nit ñi tey amatuñu ñu bari ci Sénégal yi bokk pour ma bañ wax ñëpp amatuñu benn confiance ci ci ci ni justice di doxee ban solution yan réforme ngir maanaam relation de confiance bu mën a dell si diggante Sénégal yi ak lii di justice. dama naan bu nekkoon nit la nit ku tàmbalee sukuraat la maanaam sukuraat réew mi dem be wóolootuñu foo xam ne bu leen tooñee ñu taxaw leen. réew ma tàmbali naa sukuraat buñ ci jógul nag lee mu dee moo tax man la justice sànq mooy keno mooy pilier démocratie buñ demee nag ba justice nit ñi di ci dute te dut bi léegoo lekk ñu am ci dëgg na koy teg nii parce que tamit lu ku def ne lu ne fàng kenn defu ko dara ku def ñu ne ràpp ci kaso bi dañ ko teg bët fii ku ma am ndee la ku ma amu ndee la te prophète jàngaloo nañu ba ndaw sa sàccee ci jamonoom mu nekk ndaw su baax ñuy négocier ndax ndaw si ni mu nekkee kilifa pour ñu baal ko ki ñu yónnee woon ci profet yonent bi da bëggoon tellement mais keroog la ko mere mu ne ko yow yow yaay taxaw di def intervention ci lu yàlla santaane Fatima sama doom bu sàccoon ma dagg loxoom kon waxatuma laa fii nag boo nekkee fiisu keneen wala fiiwu keneen ma ne la bañ a laal mais boo nekkee baa doola tey nga dem ci kaso bi moo tax justice boobu il faut ñu nangu ne am na lu ñu ci war a joyanti parce que tamit quelque part da ngay gis ne. léeg ñu manipuler leen il faut ñu nangu ko xam nga lan la cest à bu nit ñi dofuñu jine jàppu leen te tamit euh, dama naan réewuñu dafa am lu ñuy gis bu ñu koy kaas yow yaay toog nga jooyanti sa bopp moo tax ma ne woon la léeg-léeg nit attaqué la nga jàpp ne dalaa manqué respect mais li ma leen njëkk a dénk mooy dugal su nga xool lan laa defee kii yàpp ma justice ñoo waroon dugg ne lan la ñuy def ba peuple bu yàpp nu ñi ñuy génn tamit di communiquer xam nga lan laay bañ affaire u la waruñu génn di wax réew buy tàkk da ngeen di génn wax la am bañ yow nga yor àtte bi wala nga yor kër gi yor luwaay muy tàkk nga ne non man waruma teel a génnal wax nit ñi xam li xew parce que tamit àdduna man dama xamul transparence mooy lan transparence du taxul lépp lépp mën a génn ci penc mais dafa am loo xam ne bu réew mi bëggee tàkk nag dafa laaj ñu génn parce que transparence ba ñëpp a dee ci transparence non réew mi fii la toll mu ngi bëgg a baax nit ñaa ngi mer n'est-ce pas na am ñu jóg ne attention da ngeen juum fi ngeen dem fii am tam ñu dañu war a alerter. est-ce war na faible noonu aussi. bu bu nit ñi yëngatoo rek mu génn ni lii la. du faible su du faible su comment dirais du faible su euh, comment dirais nguur xam nga toujours dama am référence ah, su nekkee bëgguñu nag ñu dem ci seen démocratie Umar moo toog di def discours ci kanamu musulman yi en tant que benn président benn waaye arrêté ko nekkee eh arrêté la xutba bi discours bi doy na yëre bii nga sol xamewuñu la ko dañu bëgg nga justifier boo ko jëlee Umar coupé xutba bi nest Abdullah ne ko kaay nga seede ma ci yére bi doom ji ne leen effectivement son papa yérem daa jotul bi ñu jëlee xare euh, yére xare bi ma may ko mu yokk ci bosam moo tax bosam gudd nii ñu ne Omar continuer discours bi léegi si toutefois ñu ne non non la li présidentiel costume présidentiel dañ ko war a lijjanti way costume am ndax ci salaire bi ñu koy fee la wala ci caisse noir bi la loolu mooy transparence di <laughs> ci li ma jàpp Babacar ci <laughs> mais fi benn dëkk boo xam ne duma ko tudd wala fàtte naa ko sax parce que bu ma ko tuddee fàtte ko fàtte naa ko laa yàlla xam na ko dàllu soxna président bi mën na dundal xam nga ñaata village si dëkk boobu budget dàllam yi est-ce que comprendre soxna président ba budget dàllam yi budget bi voilà bi yi rek laa wax budget bi mën na dundal benn village bu nekk ci dëkk ba xam nga ñaata weer xam nga ñaata at imagine toit ñu bëgg nag ne noo kenn du wax fu mu jëlee xaalis parce que yenn yi la il faut mu leer parce que dañu leen dénk. bakkenu nit ñi dénk leen alalu nit ñi dénk leen santé nit ñi dénk leen avenir nit ñi faaw ñu génn di a gis nga bu dara xëy hôpital ma jox la misaal keroog bi ndaw si defee vidéo am ca ah, ah, ah, euh, fële hôpital Fann ORL automatiquement médecin yi dañoo réagir ñëpp xam li xew suñu noppi woon naan secret professionnel la kon hôpital principal tas non rek la non rek la oustaz que ñu tëjee benn benn thème rapidement parce que temps waa ngi dem euh, ci ci ci bu ñu xoolee fan yi camp camp président de la république ñu ngi wax ay troisième mandat dina ko utam du ko ut mais moom d' abord euh, pour man la première question war a mooy ci biir camp ay jege ñaaleem kii aw penku kii aw xarfu gis nañ Aminata Touré bu yàggul dara kooku ay mbiram waxatuñ ko gis nañ Abdoulaye Diouf gis nañ fi lancé ministre Mankeur Ndiaye ak wax yu ñu fi waxoon moom tamit donc ñu bëri ñoo xamante ni ci kaam tey mën nañu wax ne daanaka ñu ngi koy bëgg wan ginnaaw est-ce que ban ban am na ban avenir politique nga gis ci kii di président Macky Sall. waaw maa ngi koy njëkk xam nga laa koy wax wala ma wax ko ne dafa def erreur yu bëri moom président way way way xamul tax dañ ko jox pouvoir mu téye ko fooy ko ci loxo ba mu ëpp ko loxo fu mu nekk gars yi ci boppam ñoo ko jaaxal loolu niñ ko bàyyi xel gars yi ñoo ko jaaxal. bu njëkk li ngay wax de des fois pouvoir yi bari na de. non xam lu tax del xool ñamu ña ko doon jàppale ba ka Wade di sonal dafa dem ak ñoom ba ci kanam faxas leen teg na la yoonam nekk ci ñoom mu jéggi rocc ñoo xam ne ñii démb ak suba ñoom ñoo doon xeex moom ba yëkk ko lu nekk mu dem ak ñoom tuuti yëlëb leen ñeneen ñi ñëwaat transhumé ku mu neex nag xam nga xoolal da ngay noppi wala nga dem ci biti. bu demee ba ku nekk xamal sa morom nag ca tas la jëm foofu lañ toll parce que ku nekk ci biir parti bi dañu xamalante te naa la jox misaal fi ci gën a gaaw nañ dellu ca PS PS histoire mooy répéter encore une fois bi PS di tas c'était comme ça ab bi mu jeexal ñoom juba ko ñoo fàkk fii ñoom ñas ñoom et cetera nii la meloon parce que ku nekk dem nga ba yàpp waa ji ba miin ko ba xam ne sans gagne sans perte la foofu la APR toll sans gagne sans perte la. yow pour yow kii di dafa nekk ci ci wàllu tas ak nguuram. fa la jëm fa la jëm parce que lu tax boo demee ba ñu naan non kenn ñu mënul wax ci wetam gars yi waxatu la wax mais dañuy bëgg a seen mouvement kon nga xam ne ku nekk ñu mën a sa moroom léegi parce que lan la woon mën naa am diil yu bëri la woon ñu dem ba maar ci diil yi nan ngay toogee nga naan ku gañëw sa gox dinaa la dax nan ngay toogee koo xam ne moo génn lu nekk mu yëkk ko gor yi nga fal ko. et cetera nan ngay toog liggéey loo nit ba mu pare comme Aminata Touré nga ne ko non ma la récompenser genre yooyu day andi frustration loolu la rek bu la kenn nax maanaam téye pouvoir bi man maa fi fal ku wax di nga xam man maa bu yàggee gars yi ñume la xam nga dañ la naan la euh, suñu xamee li waral mbir dawtu la yéem benn booy bu nekk nekkoon koñ bi di ruube ku mu ku jëkk mu dóor la bés bu ko benn booy dóoree ñëpp ñu ko noon la mel parce que ana pouvoir mag yoroon. ñàkk na ko dès que les ya ñu feddali ko ci législative ya gaa ñi xam ne nag coow jeex na kon fi mu nekk jàpp naa ne ci dernier virage lañ nekk la daloon PS à l'époque moo leen di dal te PS saxtaane na xaw na résister tuuti mais ñii bu ñuy paree la lendemain ku nekk dina xam fan nga jëm parce que fu mu nekk ku nekk mer na ku nekk mer na alors est-ce que jàpp nga ne même président bu bu jugul woon tey 2024 bëgg nekk candidat bu ngembee keneen ci kanam mën na mën na am lu bari bu ñu gisee gouvernement bi mu fermé euh, surtout ñi ci nekk même ki mu def premier ministre Amadou Ba législative locale yëpp dañ ko gagné fi mu ne ba seen bureau de vote donc ay kàngam yu bari ba seen bureau de vote sax dañ leen gagné jàpp nga ne feek mën na fi remobiliser waat les troupes ba am fi benn électorat bi. wala iñaane ndonoom moom lay wax rek parce que xoolal ku mel ni Amadou Ba lan la joxe comme preuve yu tax ñu def ko ministre lan la su nekkee ne logique gu mag yi bu njëkk ba mooy ku ku gañoo dinaa la dàq logique am boobu génn na ci génn na ci yàgg na way way way génn na ci mu ngi léegi moom xaar ma xool ku ma neex parce que profil yi mu war a jëlee Amadou Ba bokkuloon ca critères yi mu doon war a jàpp kon gis nga ne ci dernier virage lañ nekk te effectivement boo xoolee waa ji amul. parce que solo gars yi waru koo nekk information bu jot naa ko moom information bu ma jot nag mais jàpp naa tànn Amadou Ba gisuma lu ko mën a justifier par rapport ak idéologie bi ma ki amoon ci ñi mu nekkal ne da ngeen may defali au contraire ñi doon sonna la bale ñi ñu toroxal mu yootu leen day am frustration kon loolu boo ko xoolee mooy ñu ngi ci dernier virage bi way foofu lañ toll maanaam xoola xoola APR rek ñi doon sonn dafa mel ni dañ leen puux ñi nekkoon ci plateau yi di dal ci deru góor ñi ñu xëcc leen ñi doon sonn ñu tege leen ne bu nekkoon ku gagné rek nga falu kon Aminata Touré kon du génn kon du génn de parce que loo moo nekkoon logique gu mag yi à l'époque wala bokk ci lu yàgg mais génn na ci. Touré bi ñuy formé gouvernement bi woo nañ ko proposé ko poste moom moo moo bañ moo désisté. non ba ñu ko waxoon dafa ne joxuñu ko ko parce que tamit Aminata Touré miiro na ma ko gaaw a gedd man miir ma ko mais ku gaaw gedd la may miirool parce que xam naa fulla gi dina ko xaañ lu bëri. mais tamit comme ñoom li ma ko waxee ñoomi neen la tamit gor ca wax ja ah Babacar gor ca wax ja parce que tamit li Aminata Touré daj ci campagne yi li mu dégg ci wax presque ak lu mu xas gor ñi nga war koo dëfal mais nga mel ni da ko ne noo yow yow yaakaar naa on ka que daf ko jëfandikoo quoi ne noo kii daal da parce que Aminata Touré danaan day jàpp ne kii dafa dafa ma teg benn idiot quoi xool lu mu defloo ba pare ñu war a dis maanaam kenn waratul woon dégg Macky ak Aminata Touré ci coow ci yoon bokk. ak prétexte bu mëntu door am na ko ma dégg sax ñu naan ragal na ne amit Aminata Touré ci xadara mënuloo woon jiite assemblée nationale mais non loolu tamit gisin la mais dama la ne lu mënti mel Aminata Touré bu ko Macky joxoon la ñu waxante woon doo ko dégg loolu daal gëm naa ko. temps bi jeex na sa dernier mot. waaw su ko defee ñu dellu si rek comme ni ñu ko daan waxee ñu yëg ne dala nguur gi tamit ma wax leen ko parce que bu ñu paniqué li naan iñaane sa ndono sa dee day ñaaw. Macky Sall la xaw ma nan la def ba préparé wul benn muqaddam wala ku mu seexal maa ngi koy wax keroog il faut mu seexaloon keroog wala muqaddamal la wala mu am général mais moom rek la moom rek la ba dernier moment mu ngi wan gaa ñi ne man rek la amagul ku taxaw kan moo a taxaw ci kanamu ne Sénégalais yi 2024 amul mooy li dal PS gi nga yaakaar naa PDS regroupé wu sax moo gën a gaaw waa APR regroupé wu doon doon PDS mënul regroupé parce que xam kan moo leen di jiite kon mel na ni erreur yooyu dañ ko commettre ci nguur gi mu gaaw ci ñoom lool nag xëy na dafa jàppoo ne mën naa foo foo ci nguur gi bee mais dafa xippi yeewu rek ne eh fan yi jeex na di kon pouvoir boobu boo ko naree ñàkk nii nii moo waral xadar bi ñu nekk nii tëjaati bi menace bi fii mais jeex na nañu dal dem ci rafet ku iñaane sa ndono sa dee day ñaaw te tamit dégg naa ko mu wax plusieurs fois kenn du ko dégg ci yenn yi ngir yàlla nangul naa ko loolu kenn dégg ci yenn yi président demal ak jàmm boo xëyee xëy na nga am woy wu rafet gars yi ne ne mënatoo am woy wu rafet mais nga am na ñu ko wax mais fexeel rek nga nga bindaat sa histoire tuuti bu ñuy nettali génération yi ñëw am lu fa xaw a weex mootul lépp ñuul conseil boobu na mooytu lépp ñuul parce que histoire bu lépp ñuulee sa sit daañu génn ñu yuuxu leen de